balaa ngoon guddi suba mu dem jëndiwaat ay peñe mu teg loolu rek da koy may xaalis te jarul muy génn Sénégal liggéey baa ngi Sénégal man loolu laa amoon lu ma koy. conseil am na solo. waaw nuyu naa leen. fay nañ la. xajaana bu gloglo ba pare yéen ñi di wax naan damaa ñeewantal loxo. yéen lan ngeen di ñeewantal ci loxo. naan damaa ñeewantal nogay nogay patul lagi laagiwul macha allah sama ciat ak sama ciatu morom cërëm yep mu ngi fonctionner nañ waxante deug yaangi deug dégg yep mu ngi fonctionner bu ngeen ni ñewantal da ngeen di ñewantal ko xamantene ne te macha allah am na wér bàyyi leen ay dama ñewantal yeureum len sen bop parce que nogay mi ni ngeen di yeureum nogay lagi wul cërëm yep nga ngi fonctionner bu dé handicapé fi Europe ñoy xey ci sen moto yoyu jël seen ñaari tànk yi lonk ko ci kaw di dawal dem toog ci bureau yi liggéey waxatuma laak nag la koo xam ne cëram yépp moo ngi dox génn leen ci seen yi ngeen nekk yaa yéen a ngi dégg Nogaye Kara déglu naa ko wax na elle est très très très très intelligent mais mhm. barki Seydina Mouhamed moo gën a muus maam Ndiaye moo gën a muus maman Vulgaire waxi nit njaay lay wax lu wokku dërëm wokku ko arrêté leen ñëwal xajaanaa su jaxatul may wax loolu laa bëggoon wax waaw dama wax carrément Nogay moo leen intelligente aller retour Nogay elle réfléchit mille fois que ñoom Nogay mm-hmm. dof dof lu ba am plateforme bu normal du toog mu liggéey ñeneen ni ñu rampé ba am li ñu am du a mu lan lay uti Chine nañ dëgg na commencé Gambie bi na commencé Diaobé na commencé mm-hmm. Mauritanie ah lan lay lay kursel kan lay rawantel kan lay kursel kan lay rawantel mm-hmm. na toog mu mu liggéey moindre chose mën na ci liggéey nañ nañu waxante dëgg montant yi ñu ko fi maye may yëpp bu si jëloon benn som fruit yi ñu ne moom lay liggéey fruit yooyu moom defu si sax 72. Xaja sa numéro sa sa sa micro bi dafa tëju wala dañ koy woo téléphone. allo ñuy wax waxi dof ñu jox ko xaalis mu toogaat yàpp ñàmburam nañ waxante dëgg. na jéem a gëm boppam mu liggéey bu nangoo liggéey dina am liggéey plateforme bi mu am lu mu si bëgg a liggéey dina ko ci liggéey ah dañ waxante dëgg fu mu jëm lu muy uti Chine bu demee Chine li baabiloo wax mooy dëgg fan lay wàcce bagage am tamit fan na Xajaana na arrêté yi naan ay damaa bëgg a dimbali sama yaay damaa bëgg a dimbali dañoo ah, bëgg a dama sonn ah, dama sonn yaay ah, dama sonn boole ko ci arrêté sa rongañ yi ñun ñoo la gën a bëgg ah, teral yaay sant yàlla rox sama papa dama koo dimbali yaa ngi dégg ñu ngi nii ay ci benn néeg laa doon fanaan ak sama yaay fii nii fii am na ñoo xam dañuy danqalikoo dañuy tegle teggi ay mat laa teg bu ñu tegee nii la ñuy tegalantoo bu kii tëddee fii kii tëdd fii kii tëdd fii fu waaye teg boppam bu ñu yeewoo këlamtikoo kafe gi añ bi nag lañ lay géréel ndékki li reer bi yaa xam guddi gi ku nekk dem sànneeku yaa ngi dégg bàyyi sa yërëmtalu gi ak naan sama papa. Ah. waaw ma ne continué ñoom Mazor Ndiaye. maa ngi lu ma am lu ma lu ma kii rek damay liggéey nii dama saa ci dugg ci live bi. en fait man dama ko doon proposé comme ku ci mel ne maman maman vulgaire ni mu ba yóbbu ko na ko woon yoonu jaww bi fi mu doon jëndee comme bàyyi na léegi géej gi affaire yoon boobu noonu. mu continué wan ko wan ko circuit bi ak client ñu ko doon jaay fournisseur ñu ko doon Mansour Ndiaye sa micro bi dafa tëjeewu waaw mu commencé foofu dama doon woow mu commencé ci géej gi comme ni ko maman commencé woon maman wan ko yoon bi comme un million maman trois cent mille commencé mu am na un million cinq cent mille rek mën ci commencé dem business am dama ko ñëwaat maman wan ko yoon bi dina mën liggéey bu ma jël client maman yi maman doon jaay mu jox ko link boobu noonu loolu si bu ko defee mu jarul sax muy dem ay Chine ak ay fi mun mun na continuer ci géej beeg yéen ba keroog yàlla ko may yëfu boppam incha allah. waaw loolu tamit idée bu baax la. Awa, lol tem ide bu baax la Roxy waa ñang sama waaji? Eh, ci lo ne Ma ngi ni chéri Deug pir nga fi wax li nga wax bu doon mak ñu dag sa loxo mm-hmm. gis nga Sénégal nek fi star moo yomb nogoy star la jappé bopam. Ya ngi deg. ñun ñi nek ci bitim rew xam nañ ko man quatre-vingt-quatorze no nogoy ma te mhm. maa ngi nekkuma kenn man kese maa nekk ak sama bopp di dimbale sama ndey ak samay sama papa génn àdduna ak samay mag kon nogay moo bëggul liggéey dafa taayal dëgg du rombi nopp maman Vulgaire a ngi noonu bàyyi na géej yéet bi lu ko teree mu nekk si géej yéet géej yéet dafa am xaalis. Mhm. maman Vulgaire amul client internet bi moom mooy ay client bu ñëwee riic seen biir dëgg kër teg taabalam nit ñi jënd. nit ki papa naa caleçon wa ngi noonu démb ci laay fam ni xaalisam jeex na gis nga fii ñu fi teggi cinq millions siin du ay cinq millions billahi wallahi wal kitaab am na ñu jënd bagage te jaayuñu kooku moom il le mérite Zale Mbaye moom moom ba kiri koro moom mérite na ko loolu mhm. dama la ne ay mhm. cinq millions ndax page Chine dafa seel hôtel yi kenn mayewu ko nañ waxante dëgg boo yóbboo cinq millions bëgg ñu teggi la cinq millions nga bëgg a dagg aller retour avion ñaata 3 millions xanaa moom ngay dese wala 2 millions 500 nañ waxante dëgg. Mhm. Chine am nañu ñu dem ñoo xam ne jaayuñu. siin kase nekk fi liggéey. Gambie ni nii man mii dama daan dem Gambie di jënd ci brode yeeg jesneer neer tuba yu góor yére xale lépp nogay moo bëggul lu yomb nogay ci boppam moo bëggul liggéey nañ waxante dëgg. nogay daa bëgg cukkaar yi ne ko daa bëgg cudde cukkaar ak coca bu seet jël ay glaçons sotti ci biir. star la jàppee boppam topp greffage yeeg makiyewu yi gis nga Sénégal moo neex taw xëy te boo waxee ñun dangaa soxor fii ah. kenn soxoru fi mu toll nii ñu ngi ñëw daggati ma naan ma dangaa soxor danga iñaan waaye yàlla baax na man de du ngeen ma tere soxoru fu na koy dong lu di wax na dem Dubaay gii kii bii nu mu tudd fi maman Virgé jëndee géej gi di mën ngaa bañ a dem sax boo amee ku lay ku lay jëndal tegal ko ci oto yi nga daal di ñëw. waaye nag maman Virgé ci boppam it moom moo ko war a wax dëgg. man maman Virgé des fois dama koy mel. non non ñoom ñëpp si wax kenn dëgg. ñoom a fóos kenn du si dëgg nañ waxante dëgg. ñoom ñëpp a dama lay wàcc parce que sama live la te dégluwoo ba pare te yaa ngi dugal yoo xam ne bokku ci dégg nga demal nga taal sa live nga wax leen ko Yang deg, ma nga wax xamagoo lu may wax nga bëgg ni ngeen def di ñew sama live di indil problème bu ngeen joggé dem bu ñu paree man lañuy saga man mi man mala wacc parce que sama live dama koy régler ba mu leer ma nga wax xamagoo lu may wax nga sif légui ni ngay def légui nak ñu daggati ñu naan rok su lii wala laa da ngeen di ñew sen propre sen propre règlement de compte ngeen koy régler sama live ci suuf est ce que yaa ngi dégg li wax yow da nga xam lan laa bëgg wax ci moment vulgaire nga këf sama wax. est-ce que yaa ngi dégg dama ne maman Vulgaire ba tey waxul na koy dëgg da koy raay raayal xam naa day ragal mu gàddaa yooti dem maanaam lim ko war a wax dëgg dëgg dëgg waxu ko ko du maman moom mooy jël loxo na ci boppam ne ko kaay fii ngay jaar wala lii ak lii yaa ngi dégg moom dafa dina jàpp ko magum jëmm lañ jël ay décision boppam su waree ambiance ak maman mu ambiance ak moom yaa ngi dégg un million yooyu nga xamante ne moom lañ ko jox mu dem wuti départu boppam parce que tey jii même maman sax bu ko jàppalee ëllëg ci biir wax dina ñëw mu ngeen nii comme ñoom rek ni jaaree palaasu maam xam nga maam day toog ne leen yéen ñëpp fii nii ngeen jaar fa jaar fa lañ jaar ci moom nogay war na mën a def carrière soloom créer boppam heure ambiance ak maman bu jotee ñu ambiance seen ambiance mais moom day ambiance te boole ko ak liggéey ambiance tey ànd ak dara parce que tey booy toog di ambiance ñu may la benn cinquante mille nga dem may sa papa cent mille trente mille nga eh, jox sa papa vingt mille boo yoree ay doom nga jënd yëre mu jeex suba nga ñëwaat loolu na du continuer parce que TikTok bi ku nekk da ngay jël sa temps comme jamono ji suñu borom tàccu na la boo feccatul dootoo fecc parce que may naa la fii ak six mois xoola beneen phénomène moom mooy ñëwaat parce que nit ñi dañuy jëlee parce que nit ñi dañuy jële weer bu nekk ak ku kuñ ca war a jël comme jamono ji yow la fi yàlla teg tubaarikàlla macha allah sama cat ak sama catu moroom profitool bu baax ci nga war a mën a profitoo parce que ñoom ñëpp bañ tolloo ci moment boobu dañ cee profitoo ba toog fi ñu toog nii tey yow nag yaa ngi toll ci moment boo xamante ne ci nga war a mën a profité parce que am nga chance bi nit ñi bëgg nañ la kon nag ci nga war a mën a profité imposé tegal dara ci table ji ñëwal ne lii laay jaay boo ko jaay barki Serigne Touba nit ñi dañuy jënd ba mu neex nit ñi dañuy jënd ba mu neex parce que maman Vulgaire moom nga toogandoo ngay ambiance ak moom maam Ndiaye place am nga koy fekk di ambiance ak moom muy jaay ay client am di toog di live ngay toog di ruube xaalisam di dugg compte di dugg muy def ay paketam di yóbbu maman Vulgaire moom ngay toogandoo di ambiance day toog di shooting te mu ngi ne heure tukki ba mu jotee dana ne fa ñukku dem tukki jënd ay bagaasam ñëw jaay day liggéey kon avant tout moom liggéey bi la teg yow nag yaa ngi nii toog yow fi mu toll moom tukki na yow instant bi danga koy xaar mu ñëw nga ambiance ak moom moom tam mu ambiance saale jaayaale ay bagaasam nga toogaat ubbil sa bët yi réew mi nag neexu ta waxe ko wax ñu naan dangaa saytaaneeg dangaa bëgg a jaxase danga bëgg lii man sama yoon nekkul ci ñoom parce que ñoom ñëpp nekkuñu samay moroom seen ànd apporté lu ma dara mais nogoy moo war a may nit ñi jàmm tuuti ay dama triste ay bënd bëd di joy ay dama bëgg téral ay dama li ay dama la mën nga teral sa papa togon nga fi ay temps nee nga xawma dañ la may terrain Europe gi amna ñu fi nekk 20 ans té amuñu sax terrain té yow yaangi non Sénégal suñu borom dimbali la sama ciat ak sama ciatu moro kon am nga possibilité am lu nekk am nga possibilité nga am lu nekk mais ci kaw na nga gëm sa bop nga gëm sa bopp mama tey bu demee Chine war na faa dem parce que ci ay géej bër la commencé trois cent mille francs moom moo toog ci live wax ko nee na trois cent mille la commencé ak jëkkëram moom lañ jël dem jawbe te xam nga nag lan moo ci neex nga déparal sa bopp soo koy nettali soo koy nettaliwaat boo toogee tubaarikàlla ba suñu borom dimbali la ba ngay toog ba di ko nettali ci lay neex ci lay neex chaque jour mu toog ne moom trois cent mille francs la départ moom la jële jawbe wàcc fi commencé te tey bu koy wax day fier yow tamit dañoo bëgg yow tam nga am loolu mais tey yow boo tëbee rek yow dem Chine tubaarikàlla tey ñu war a interview na koy looy wax commencé say fruit commencé ci dara demal nga jënd sa épice heure jaay bu jotee nga jaay ni ñëpp heure ambiance bu jotee nga ambiance yaa ngi dégg mais fu ñu waxee <laughs> waa mu ngi noonu ñëwal Babeloo kan kan moo bëgg a ñëw foofu Babeloo est-ce que déplacé wul xoolal ay dëgg kese nga ko wax gis nga nit soo xamee ne àddina boo fi nekkee ah liggéey moo lay may da ngay takk sa ndigg liggéey moom am na opportunité nit ñi di ko may toog na Sénégal fii may nañ ko loo xamante ne am na artiste yoo xamante ne amuñu ko toog na déclaré terrain buñ ko may toog na déclaré xaalis buñ ko may lan moo ko teree liggéey xanaa boutique Pikine sax defe naa ko 100000 nga am fa boutique 100000 nga am boutique lan moo ko teree liggéey 60000 mën ngaa am boutique. mu ngi noonu nga ubbi. Mm-hmm. Mm-hmm. ah nga ubbi sa boutique toog fa yàlla day ñëw loolu force la parce que sa biddew bu fenkee dañ waxante dëgg nangul mais bëgg lan ngaa mu naan dama triste di jooy di def ay son yu triste yooyu ngay bañ. <laughs> parce que Serigne Touba Mbacke naan tey dama jooy xel mu dem ci xaw ma la nag lan naan walaay dama jooy xel mi dem ci xaw xoolal bi ma ko seetaanee sama xel dana yar ci yow ma ne kii kii rox dina laalal parce que lii nii tegu ko fenn ay dama bëgg dem Chine mel ni xale deux ans mel ni xale deux ans bu fi yaayam bàyyi na concentré wu mu ah ba ma gisee vidéo bi man live bi e bettu ma billaahi live bi nga ko rëkkal nii non honnêtement bektu ma non c'est que toog sama gémmiñ gi dara xam nga lu tax ñoom ñi ko ah. live ko ñëpp kenn waxu ci nogoy dëgg kenn waxu ci nogoy dëgg yéen nogoy mii ngeen naan anday saan nogoy gën leen a jekk ëpp leen matériel nogoy ay prigam yu baax ay mbubb yu wala ngaan ay mbubb cent mille lañ koy may xew yi muy dem ay mbubbu cent mille mbubb cent cinquante mille ñu ñëwal ko ci grand gratuit di koy jox ay prix rafet mu dëppoo mu ngi nii xew anniversaire maman bi daa sañ sa ba jekk jongama bu xew amee kenn du ko xàmme waaw day defaru ba jekk kon nag yërëm gi ngeen di yërëm na koy yéen na instant bi yéen moom moo leen gën demindi yéen ñooñ di ko yërëm te seen compte Wave amul sax cinq mille francs ah waaye tamit euh, daaw ketal nañ la fi deux cent mille mënoo dëkk nag ci ñu di di la ketal tout le temps ak di la rassembler xaalis loolu mënta nekk asgor warta nangu loolu yow un million ba rek ba lu ko bugaan mayee yow ca nga waroon a wàccoog ñëpp ca nga waroon a wàccoog ñëpp nga dëggal sa bopp même Chine nga sax ba la ko bugaan proposé danga ko waroon a wax na ko xolal may ma tuuti ci un million yi dans trois mois xaar ma nga def le tout pour trois kan moo ko may xaalis kii nee na tam ki saaliw tam may na ko xaalis ah yàlla baax na nag c'est que toog muy dox nag ah su may na ko xaalis avant Bougane di ko may. waaw mu ngi noonu nag waaw léegi xaalis boobu yëpp noon anamu léegi nag nit ñi. bu ñu waxee ñu na ñoo xam ne. boo leen fekkoon seen kër may leen fukki junni ñi daw centenaire jënd li ñu jënd ñoo toogaat seen kër live jaay am bénéfice Nogay moo bëggul liggéey Nogay pour moom star bu mag la ndax day toog ci live naan maa ngi leen di bégal dee leen ma wéev maa leen di bégal vie bu yomb boobu Nogay hmm. boo ko jàppoo di ko rëccu liggéey demal nga amal sa bop li nga bëgg su ko défé sa morom yi tey bu ñuy voyage duñ la fi bayyi mo gën nga bëgg taxaw tay tay tay nga bëgg tëp tëp dem Chine Chine du noonu de nogay. liggéeyal non ñu koy rassembler sax nak dafa bari té bop ba tay na dafa bari ci dara xaliss ñu ngi la koy rassembler nogay dëggalal sa bop nga jëm ci def dara. parce que nit tam mënu dëkk tam tay ci sax ju bu jot ñu lay kétal ak di la rassembler xaliss ak nit ñi di la may yow bu gaan bam la may 1 million rek yow waron nga wone preuve waron nga dem sàndañëri jënd lepp fruit bo ñëwé dëggal sa bop jënd sa nap yu wéx tal jël sa endroit yaa dégg ma ngi déggon ben jour ñu naan piling néna na da lay jëlal appartement ya waro xaar sax mam Ndiaye di jëlal appartement ya war nga mëna jël sa bop appartement ah bugan ba mu la mayé 1 million nga waron def sa table bu wéx tal jënd say nap yu wéx tal nga dem jënd say bo nga raxas ba mu set dégg nga dem jël sa appartement bu baax nga jël say doom ranger leen nga fatale sa papa sa coono waroon naa jeex na koy bu yàgg mais man je trouve que ni da da nga da nga da nga dafa mel ni liggéey nekkul ci yow la gisee ni dafa mel ni ah waa ñëwal ki Babilo rob si kay ma wax la man la ma ne euh, mm. sànq si live Mame Ndiaye jox na ko leçon de morale bu mat sëkk nee na ko mm. carrément maa la gën a mën a jox loo demee loolu mooy demal nga liggéey instant bi ku ma laa defalati defal suñu famille lim na ñëpp li mu war a ubbil yaayam li mu war a ubbil euh, kii gàdd ki di gàddaay chaque jour ak kaneen ak kaneen donc jox na ko bu mat sëkk na dem na liggéey liggéey la tollool xale la lan lay daw bay daanu na dem na liggéey nag rox tey moom bii moom bii moom dama sa ndax yow à deux cent pour cent ndax xam nga lu tax Maam Njaay euh, nit ñi TikTok bi dañ koo jox ay conseil li fi jaar jàlloon ci loolu noonu la jël ci la jàng àdduna parce que fii tamit say mbokk bala ngaa dimbali benn jàmbur nga dimbali mbokk parce que li ko dal ci li temps yii nii ci ginnaaw loolu bëggul laa wax mu répété waat comme loolu kay moom jëlee na ci nag leçon bu bien kon kay alhamdulilah kon kay bu demee ba loolu moom mu daal ciy jëlee leçon yaa ngi dégg la moo tax maam Njaay ko dimbali lan lan la bokk ak moom bokkut ak moom day ak la moo tax maman Birguet di ko dimbali yàllaa leen boole ñoom ñëpp ñu nekk ay xarit di ànd ah mais lan la lan la na takk ndiggam dem liggéey na commencé ci dara wax ji lii la wax ji lii la mais toog di ambiance naan tey mu neex waa tey mu neex moom moom day ànd ak dara nekkul ne tey dangay toog naan ah nekkul ne tey dangay toog naan tey mu neex ñu may la benn cinquante mille ñu naan la xaaliss bi anam nga naan dama ci jox sama papa juroomi junni sama papa dama koy jëndal la yap sama papa dama koy jëndal nangam man position bi ni nga nek suma ci nekkon barki Serigne sali un an ma jël sama appartement rassembler sama doom xej sama papa teg wut sama jank man ma la wax li tay deugal sama bop yow bu la nek place sax mën nga ko baña am mën nga jël sa ben appartement tok sa kër boo xëyee lal say fruit taal sa live di jaay nit ñi di commandé nga am say livreur comme ni ñeneen ak ñeneen amee seen livreur mais bu ñu waxee nga bënn say bët naan damaa bëgg a teral sans papa fii ñëpp a bëgg seen papa fii am na étudiant yoo xam ne bu ñu xëyee paas sax duñ ko am parce que seen nday yorul paas bu leen jox mm-hmm. fii am na xale yoo xam ne dañuy xëy ñu ndékki parce que seen yaay amul ndékki bu mu leen jox tey am na ñoo xam dañu xool seen yaay mu xiif xool seen papa mu xiif ñu xam ne kër gi dara newu fi amuñu ko waaye yow macha allah nee nga yow nitu nitu wërsëg nga heure bo génnee ta life bi bala nga pare sa 100000 wad wala sa 20000 wad même bu la ken mayul sax mama vulgaire mi ngay talando life dina yëkëti ben ñent jundi wala ben ñaari jundi jox la amna ño xamné amuñu sax lool amna ño xamné amuñu sax lool amna nak lo xamné boy continuer di def da dangay dem ba da ngay ridicule dangay dem ba da ngay ridicule ba pare nak ridicule nak ne tue pas té bo démé nak ba ridiculer sénégalais buñ la xassé ba jéppi jeex dé

nogay fi mu ne star bu mag lay jaay toog yaakaar ne yëf yi dafa yomb liggéeyal nogay ku la waxul liggéeyal da lay nax liggéeyal li rox su wax dëgg la wutal sa studio wala sa deux sa salon nga toog fa dem dajji say balu fëgg jaay toog di live di jaay gëm sa bopp jël sa xaalis am fooy teg am fooy dugal léegi nga demal sa bopp Chine te kenn du la yóbbu. te kenn du ko yóbbu day dem kenn xëyul rek dem. kenn xëyul rek dem Chine. kenn xëyul rek sotti dara kenn xëyul rek dem Dubaay kenn xëyul dem fenn. fii ñëpp a Mm-hmm. nit ñi dañoo rampe rampe rampe rampe man damaa jaay kere damaa jaay kere ba tas école. jaay ataaye ba tas garage. avant may dugg tukki daan naa dem Gàmbi di rampe di jaay mais mënoo ni nii nii rek ndogay demal nga liggéey parce que ndogay léegi dafa yëg succès ndogay pour moom mooy loolu te gis nga tey mu neexax tey mu neex suba mu neex gars yi dañ lay xew ñu di fii six mois sénégalais bu ñu la jëlee rek jël nañ la comme jël nañ la nii exploité ko nga wut sa looy defal sa bopp bañ a xaar kenn nga jënd say fruits nga jaay bu ma mama ambiance tegal sa plateau fruits nga jaay bu subaa da nga yóbbu sa bopp mën nga teggi sa natt boo teggee sa natt yóbbu sa bopp te kenn du la yóbbu parce que yow patoo laagoo yaa leen gën a jongama ba xam nga ñoom ñuy ànd yëpp kenn duñu ko ci jongama keroog bi mu solee ci anniversaire bi dama tiit. dafa rafet elle est bu rafet mu am beauté bu naturel mu jongama lool ci kaw jekk. yow patoo làgguwoo te ñëpp bëgg a teral seeni waajur baa xamal ndogay li mu am am na ñuy tukki sax duñ ko am ndax ñun dañuy fortaatu rek mais yow boo écarté ni xew nga ñiit may la cent mille fële kii may la un million buñ la mayee un million dañ ciy jéem a business jéem a xool ndax dina génnee cinq cent mille dem di jooy wala fii fii ñëpp bëgg a jooy ñëpp bëgg a waa léegi man sax tey damaa waxatul lool parce que sénégalais man di ñu ko commencé nii man je comprendre comprends plus man ku ne xam na ne tubaarikaa la man euh, nenu baxal defu ak moom leen parce que day jàpp sama pain croustillant muy Ousmane Sonko mu sell mi nga xamante ne moo nekk sama futur ma ma mari un bon pain croustillant parce que yim koy wax moo tax yooyoo tax man ah, j'aime pas nenu baxal waaye tam dëgg nag du romb nopp yaa ngi dégg nañ waxante dëgg nenu baxal mii ngeen ciy jël di ko cotti cottee ak naan la mën a walloog moom def na ko un million yooyu ma ko may ci digg réew mi ku yëkkati mille six cent euros may la hmm? te fii tey am na ñoo xam ne looloo nekk seen salaire nit yëkkati ko jox ko kon nag nenu baxal chapeau man sama dëgg dama koy wax même su ma àndut ak yow boo defee acte bu rafet tam dama koy rafetlu. mais loolu mooy dëgg nag léegi nag yóbbu ko Chine ngeen commencé de ko cotte cotte. waxoon na ko nangam sàngam mais léegi lan la. <laughs> Chine day noonu. Chine la ah, noonu Chine da ngay rampé. Zaal Mbay mi tey jëm Chine dama ko dama ko parce que dafa rampé Zaal Mbay. jaay na ay beñeem jaay na ay caleçon ba pare Zale Mbaye dofu liggéeykat la Zale Mbaye dafa am jom man dama ko bëgg parce que dafa am jom dafa rampe waaw na ngeen de salaam si jàmm waaw maa ngi ci jàmm chéri cinq minutes rek laa ci bëggoon balaa xale bi sama xale yi ñëw mhm. ah man de li nga wax si euh, noga yëpp dëgg la mais moom sax koor gaa ngi jublu si du génne du jéem a ut ay veselam quelque veselam moom yàlla def na xamante naa xale yi. bu rëkkee ay veselam ñëppay jënd napp de table yeeg dressage yi day day jaar koor gaa ngi jubli si bu bu koor gi buñ duggee si biir koor gi mu jënd ay fruits biir koor gi fruits bi day jaar. Ah, waaw. ah man de loolu laa gisoon mais tamit toog chaque jour nga ne may ma gémmañ ñu may may bu yàggee ah la muy xeeñ du neex de. waaye yow man mii nii toog di wax ak yow mii man mii koor man dama daan jaay sama yaay caagiri. caagri moom rek laa mën araw te man mii maa ko daan araw maa daan jënd dugub ba yàpp ko boole koog ceeb yóbbu ko marché zeng ñu walal ma ko ba mu nooy tubaari kàlla ma def arawu caagri bu mel ni jàmm tay ko ba mu suus daal di ciy def samay bër ak samay ki takk cent franc takk ko ba mu dëgër takk ko ba mu dëgër amoon na benn oto bu tuddoon Saalum Sow fépp la doon wër ci Dakar oto boobu laa doon topp fu mu dugg ma dugg fa ko jënd sow jënd caagri man mii toog man mi tok jaayal na sama yaay caagiri ay at ati at. da nga bëgg liggéey rek ku bëgg liggéey dafa yomb xam. loolu sax idée la li nga wax non sax idée la caagiri ak ngalax bi day dox ci koor yi ba bëgg di mu def ay poom yi ma macha allah waaye daal nit ki nak bo tamul dara mom ñum tamal la may ma da neex de. bu dëggalee boppam de léegi nga def nga def Ibra naaje batre ba yalla may la jamm xeyna la ba 3 heures sangu ñew tok 2 minutes. nga am ak ko mëna am jël ko tubbee di ko jaay mu jar dafa bëggul liggéey. pépp suuf sax instant yi ñu toll nii ak ah ni ko Sénégal lay joxe bopp suuf sax su ko tubbee naan leen suuf cent francs day jar jën day jar de bu jaayee dëggal boppam day jar moom mu mën a yóbbu boppam te kenn du ko yóbbu fi mu toll nii xew na su engagé woon ci dara rek dëggal boppam di jaay dara di écarté wax ay bal xale yi bëgg nañ ko dañuy jënd mais toog di jooy ay dëmali dëmali ñun ñëpp ñun ñëpp ay souffrir ñun ñëpp a sonn mais duñ ko won kenn dañuy góorgóorlu ama suñu bopp Hmm? ñëpp bëgg a toog ñëpp am jaar-jaar moom jaar-jaaram sax dafa neex yow da toog ñu lay may ay cent mille deux cent mille un million ñeneen ñi seen jaar-jaar amuñu loolu fii ku nekk am nga hmm. démb ku toog wax sa démb macha allah rabbi nit ñi nit ñi yërëm la mais sa jom sa jom du la may chaque jour nga bëgg toog di bënn na sa bët chaque jour nga bën na sa bët xam ne mi ngi topp mi ngi topp Maam Ndiaye Savon kooku de wóor na yàlla yoon kooku buñ ko jàppale woon tey bu buñ ko moyoon cinq cent mille rek man gëm naa ne kooku buñ ko bàyyee fii deux ans mu teg kan yaay faal bu maam Ndiaye boom bëgg na liggéey dafa yorul moyen rek mais gis nga buñ ko jàppale woon mu liggéey kookoo bëgg liggéey mais yow nga toog fi nga toog nit ñi di la jox benn ñaar ñett baabedoo <laughs> bëgg liggéey bëgg liggéey ak semblant bokkul gis nga boo bëggee liggéey dix mille francs sax da ngay liggéey bul xaar ku la financé am na ñoo mhm. xamante ne kenn financé wu leen am na ñoo ah. xamante ne kenn jàppalewu leen si cent francs gis nga bëgg a liggéey ak semblant ah. liggéey bokkul soo bëggee dix mille francs sax bu ñu ko joxee ah. dangay dem jënd gerte yaa nga def ah. gerte suukar nga teg nga jaay mu jeex nga ber sa bénéfice bu subaa nga jënd ndaama raas bu gannaaw subaa nga jënd gerte kemb nañ waxante dëgg kooku moo bëgg a liggéey waaye semblant nii bu subaa nga jël ñaari carax ñetti jarax gannaaw suba nga toogaat ne daanu nga non non man gisuma ne ku bëgg boog ñun ñun ci suñu jaar jaar boog Assalamualaikum. waaw Roxu maa ngi di nuyu. maa ngi nuyu tim Roxu Babel. Ramz maa ngi di nuyu. Roxu maa ngi nuyu sama sama sama kal bi bi maa ngi di nuyu bu baax wax dëgg fa yàlla li ngeen foog yëpp dëgg la parce que y' a pas de métier te ndox yi ni mu bëgg a doxalee nii àddinaam du noonu parce que fii comme ni ngeen wax rek ñëpp a jaar si métti ñëpp ñëpp ñëpp y' man mi di wax ak yow comme rox li mu wax rek jaay naa lu ne jaay naa fataay defar naa ay keek di ko jaay euh, jaay naa kii lu tudd sax ay jus loolu lépp nit nit loo gëm rek yàlla dala siy jàppale ba nga toll fi nga toll daal kon man su ma sañoon conseil yi ngeen ko jox nii mu appliqué ko te def loolu daal moo gën xam nga rek muy euh, muy muy jël xaalis di ko di ko def feneen parce que tey ji ku nekk bëgg nga jàppale sa yaay bëgg nga jàppale sa papa xam nga surtout maa nga am doom mu ngeen ko conseil yëpp pour man daal na ko na a pratique daal na ko jéem a def parce que àddina dara xëyul rek sotti tey ji suñu ñëpp comme ngeen wax ku nekk jaar nga fu man man li ma def sama jeunesse xam nga jaar naa ku nekk ngir rek dimbali sama yaay dimbali sama papa maa ngi jégalu nag ci bébé bi. dëgg la garaawul yaay Mouhamed kontaan nañ. ok merci beaucoup mu ngi noonu léegi nag. wax nga lepp mama na wa man damay ñew coupé parce que sama doomi ñew nañ damay défar sama doomi yi wa li mënu mako wona bëtt daalé tëddaale té duma ko wax. parce que sama làmmiñ da doon rax ah. mané ne na ba ci kanam xalé yi wàcc nañ. waaw baax na ok. kon gaay yi am ñu dina ci jang dina ci jang bu ci déggé wa mu ngi non nak waaye nagoy na buñ la ruxé na ba nga taala ma live dina neex dina tang man dama laa conseillé xulo ma ak yow xasuma la parce que nit ñi dañoo saytane gis nga TikTok bii. leneen lañ am na ñoo xamante ne ñoo raw sax ay dëmm ndax seytaane parce que man chaque jour bu jot ñu jël samay wax juutal ko surtout ma page yi dagg page yi dagg am na ci ñoo xam ne ay saytaane lañ parce que bu ngeen jëlee sama yenn laay ngeen koy dagg da ngeen di bëgg pour dóor ma ci kaw sénégalais wala pour ngeen jaxase ma parce que man sama biir laay laa toog wax li may wax yéen ñi koy dagg ci ñenn ñi waxuma nag ñëpp am na ci ñoo xamante ne wax dëgg yàlla yonent bi. samay waay lañ waaye am na ci ñoo xam ne dañ koy dagg pour daal di ci jublu leneen waaye yàlla nag lépp la gis man nekkuma ragal te man du yéen yéen du man yéen yéen a may arrêté parce que man lépp lu ma bëgg a wax dama koy wax parce que day yàgg rek mais damay am ci seen kaw dëgg parce que man ci yoon bi ma nekk nii yoonu dëgg la yaa ngi dégg bi may nekk Sénégal comme yéen laa nekkoon naa fekk foo wax lu ma gëmut waaye Europe damaa yaraar bi ma ñëwee Europe damaa yar sama bopp yooyu yëpp dama ko dindi sama léegi lépp lu ma bëgg wax nit dama ko koy wax carrément lépp lu ma bëgg a wax nit dama koy wax nit carrément yaa ngi dégg xam nga li tey mënoon naa toog ci suuf te yéen ñëpp yéen a ngi koy muñu muñu mais ci suuf te bu nogoy karaa taagee taale laay yéen yéen a nekk di reetaan naan ko nogoy danga neex ay waay nogoy rey na ma ñii di ko jël di ko def profil ñi parce que loolu ngeen bëgg dof ngeen bëgg bëggoo leen nit ku jekk bëggoo leen nit ku bëgg boppam kalaasu nogay karaa gi moom ngeen di jël moom ngeen di bëgg moom ngeen di def profil parce que bëggoo leen nit ku yàlla teral tey jii bu ko yàlla teraloon tuuti yéen ñëpp koy critiquer mais comme ni muy def di sol ay yére yu kii di kaf di reetaan lu mu ngi noonu looloo tax parce que sénégalais moom moo bëgg gis nit ku sonn anday saan moom lay bëgg di wax ci nit ki man nag mënoo leen maa gisal anday saan parce que man fu ngeen ma fekk damay correct xamoo leen sama soxla lebuma leen ñaanuma leen samay doom macha allah ñu ngi propre moo tax kon ngeen may waxal li nga xamante ne daa négatif yéen ñi ma bloqué ñooñ nag ñëpp maa leen bloqué sama laay fi ñuy dagg ngeen koy jol di ko dugal di commentaire te bu ma taalee laay fi ngeen fii ñëw xàmme naa leen le deux visages de Anna yéen ñëpp laa bloqué seen ndey te bu ma kenn wax bloqué ma nit ki boo ko bëggul bu ko seetaan tàllal leen ba caaka njaay man wotuma ko compte un million wutuma compte trois millions compte bi bu tëjee tey am naa sama beneen compte Dakaaru Suuta Mbaay mille abonné la te bu ma taalee nit ñi dañuy ñëw man dama jommi da ngay gis ne tey ma taal laay fii ñu dagg laay fi mu dem wax ay bal foog ne man duma ko liir ñoom ñëpp laa tegal seen rey bloqué leen parce que ay doomaraam geen ay vaurien ngeen point com maanaam ci ñenn ñi am na ci nag ñoo xam ay nit lañ mais am na ci ñoo xam ne kaña sax a leen tane mu ngi noonu wasalaam maa ngi coupé sama live